ITFA Institute Al Madina si suñu imam Muhammad Muntaha Sakho ñoo may émission bu mag bi bismillahi rahmaani rahim قال المؤلف رحمة الله عليه أيها وجمعت ألف كتاب لا تكون مستعدا لرحمة الله إلا بالعمل لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى Dear child, if you studied a hundred years and collected a thousand books, you would not be prepared for the rahmah, the mercy of Allah, the exalted, action. Allah tabaraka wa ta'ala says, وأن ليس للإنسان إلا ما سعى man or uh, man shall have nothing but what he strives for or uh, the human, the human being shall have nothing but what they strives for. Surah An-Najm, Ayah 39. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا whosoever whosoever expects to meet his Lord let him do good deeds falyaamal amalan saaliha wa qawlu wa qawlihi jazaan bima kaanu yaksibun Allah Ta'ala says whosoever uh, a recompense for what they used to do meaning the people of Jannah will, will, will have whatever they have as a recompense for what they used to do not for what they used to know jazaan bima kanu yaamaluun surah nine aya eighty-two hmm? and then allah tabaraka wa taala says inna alladina amanu wa amilu salihati and, uh, and verily those who believe and do good work allah taala said they will have for them the gardens of paradise as an abode. No change will they desire from them. As for those who believe and do good work, they will have for them the gardens, Jannat, hmm? gardens of paradise, as an abode. No change will they desire from them. And Allah Ta'ala says, uh, except he who repents, believes, and does good work. Eh, the people that will make it to, paradise, the rahmah of Allah Tabaraka wa Ta'ala. We ask Allah Tabaraka to grant us Iman and to grant us Amalus Salih and to grant all of us acceptance. hada wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam amin barakallahu lakum wal afu minkum